ci ci changement boobu noonu aussi ñu bëri jàpp nañ ne Ousmane Sonko moom mooy le candidat idéal pour changement boobu noonu ngay am affaire yi dox donc euh, nga gisee profil boobu noonu. Ousmane Sonko wax naa ko sama benn freestyle nee naa leen yàgg yàgg Ousmane day ñëw. ok est-ce que comprendre nga. Mhm. gis nga yàlla bu la nammee. Mhm. bu nammee yàq ci yow day raxas. Mhm. maanaam duñ ñëw rek def ci yow parce que njiitu Sénégal ki koy doon. mooy maanaam après Macky Sall. dafa war a doon ku. ku bien quoi ku non non non ku ñor ku mature. est-ce que comprendre nga man je pense que galankor mënul ñàkk ci yoon. Mhm. parce que kaso yoonu pale la. Mhm. Abdou Diouf Ablaye Wade. xam nga am nañ am nañ fi Nelson Mandela am nañ fi ñu Thomas xam nga. Mhm. am nañ fi ñu bëri ñu comme exemple. vous comprenez donc Sonko dama koy wax rek ne ko ne muñ. bés dina ñëw chacun à son tour chez le coiffeur. tu comprends. yeah te bu ñëwee tamit bu mu leen topp. bu ñëwee. na ñëw parce que bu leen toppee day perdre temps comme Macky nu mu toppee woon gars yi ay piège la ay piège éternel Macky ñu bëri amoon nañu yaakaar ci mu jël nguur gi tamit du tas sama yaakaar ah, ñun ñëpp yaakaar rek la am est-ce comprendre mm-hmm. mais Ousmane yàgg yàgg dafay ñëw day teew <laughs> yàgg yàgg <laughs> dafay ñëw <laughs> mënul ñàkk